salaamaaleykum ustaas. waaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi la koy delloo fooy wootee. maa ngi wootee fii Géejawaay. Géejawaay ana waa Géejawaay. ñii fi ñu ci jàmm alhamdulilah. man dama doon laajte. waaw. boo amee doom. ku am doom. waaw yàlla def sa sa loxo jotewu sa gannaaw nga rayal ko ganaar. waaw. léegi bu yàlla defee nga mën a gan da koy rayal xar. jërëjëf laaj bi am na solo ma ñëw ci léegi dégg nga. waaw incha allah jërëjëf maa ngi lay teewlu. jërëjëf waaw tabaarkàlla nee na mi ngi teewlu eh, loolu mooy ngénte ku am doom doo ko reyal ganaar déedéet ku am doom doo ko reyal ganaar xanaa rey ganaar pour gàñ ñi lekk xar nga ko ameel xar mi nag su fekkee xale bi daal juddu samedi tey samedi bii di ñëw lañ koy rendil xar. ginnaaw bi ñu ko watee daal di nodd ci noppu ndeyjoor li xam ci bu càmmoñ bi tudd ko su fekkee samedi jot na te amuñu xar dañuy nodd ci noppu ndeyjoor bi li xam ci bu càmmoñ bi wutal koo tur te dem wuti xar noonu ngay def maanaam bis biñ koy ngénte ñëw na xëy nañu amuñu xar loolu nag bu dee ci Sénégal da ngay am problème sa ñoom yaay sa gore yu ku ne di wax ana problème bi amul problème demal wuti xar peut-être fii ak jours nga am xar peut-être fii un mois nga am xar peut-être fii nga am xar peut-être fii ak deux ans boo demee sax ba xale bi màgg ba mën a liggéey te am amagoo xar nga ne ko l'an 2020 bi ñu lay ngénte amuñu woon xar xale bi ne ah ñu ne waaw moom tam bu mu ko def problème. na dem ca daral ga jënd menn xar mu laaj alaaj ñàng xarum tudd lu muy jar dina <laughs> ko ko wax mu jënd xar yonent bi dund na 6300 door a rey xarum ngénteem wax leen ko tey sallallahu alayhi wa sallam dund na 6300 door a rendi xari ngénteem moo tax xari ngéntee keroog 63 mouton la rendi daane Seydina Aliou kaay mottali li ci des je suis un fatigué kon nag soxna si bul ren di ganaar waaye xam leen nag xale bi yéen a ko amel xar saa bu ngeen ko amee baax na jëkkëram ak yaayam ba ci moom su màggee ba mën a liggéey ngeen ne ko bébé bi lay biñ lay ngénte amul woon rek xar xam nga léeg-léeg gis <laughs> jigéen ju ju ju dem kër jëkkëram ba am fa doom doom jay bëgg sëyi ay mbokkam ne ko déet muuraguñ la kon dañoo war a dañ laa war a muur door muur sa doom ma dem ñu muur ko mu jël si amul benn problème ma jël si waat ci laaj bi kon ginnaaw amu leen woon xar dem leen wuti xar rek bu leen am nag benn complexe xar mi yàlla ngeen ci jaamu xale bi ngeen koy rendil bu leen kenn wax ba ngeen am problème fekkee amagu leen ko nag di continuer leen di wut rek <clears throat> saa bu xar jàppandi rek yàlla na xar jàppandi dëkk bi neex sunu pétrole bi ñëw sunu gaz bi ñëw ñëpp yi tànk yi jaay